ginnaaw bi président Macky Sall daal di génne ab décret daal ci gracier ki nga xamante ne mooy Khalifa Ababacar Sall Sénégal yi xëy nañ daal ci joxe seen i xalaat. jàngat bi ma si am mbégte laa si am mbégte parce que Khalifa Sall tëj nañ ko plus de trois presque trois ans bientôt trois ans donte tëj bi sax jàpp nañ ni du woon yoon donc bis bu ñu demee ba dégg ni président def na grâce si moom. mënuñu lu dul sant ko di pas sant président parce que duñ ko du ma si sant président waru ko woon tëj ba koy bàyyi. mais mbégte bi ñu si am mooy libéré bi ñu ko libéré parce que il est temps quoi ñu bàyyi ko te baax na tamit si climat politique bi gis nañ ni temps yi ñu ngi teg ay jéego pour dëkk bi gën a mën a amaat jàmm dëkk bi mën a amaat dal prisonnier politique la dañ ko injustice la quoi parce que adversaire politique bu Macky Sall la woon si loolu la ko tëjee woon waxoon na ni moo saa yu ma neexee laa koy bàyyi loolu la confirmé peut-être euh, jot na ay pression peut-être waxtaan nañoo ak moom peut-être bëgg na amaat beneen taxawaay moo tax mu bàyyi ko quoi loolu lañ ko jàppee ñu prisonnier politique waaw suivre nañ épisode bi Khassimou euh, Touré pour leeral musul nekk euh, avocat xalifa Sall d'après les informations yi nga xamante ni am nañ ko Khassimou euh, Touré frère Mbaye Touré la Mbaye Touré bokkoon na si ni jàppaloon ak xalifa Sall moom ñoo ñu la doon defendre ak ville de Dakar défendre ville de Dakar ne veut pas dire défendre Khalifa Sall défendre defendre xalifa Sall man liir naa ko dafa ne moom moo jël propre initiative

donc am na avenir politique réalité politique la instant yi ñuy wax Sénégal mënuñoo wax lim trois personnes te doo si boole Khalifa Sall jàpp naa ni réalité politique la loolu kenn mënatu ko dindi ko dina dina dina yomb ñoom ñëpp seen objectif muy Khalifa Sall muy Karim Wade muy Sonko mooy euh, remplacer Macky Sall ku si nekk da ngay da ngay ngay liggéey Khalifa Sall pour man centième bi gën a rëy moo nan lay def ba ba dajale famille socialiste yi. Euh, électorat yi bokkul électorat les patriotes ak électorat socialiste yi bokkul ku si nekk da ngay bay sawaar sénégalais yi après au moment venu ku si nekk boo présenté programme bi nga xamante ni jàpp nañ moo gën pour Sénégal nit ñi vooteel la mais. xam nga ñu Sénégal fii ñun am na affaire yoo xam ne lii rek la quoi ñun ñun ñun ñun comme que dañoo toog bu en certain moment donné bu politicien yi mënut ñoo réglé léegi famille religieux yi ñoo war a réglé problème yi. kon suñu démé ba au moins am nañ kenn ko xamante dina ko régler mën nañ ko régler dañu sante yalla comme que politiciens yi échoué nañu ki famille religieuse yi ñu ngi ñëw di régler problème yi je trouve que c'est une très bonne chose parce que aussi ñun suñu bëggoon avancer dans la vie parce que mënuma comprendre nga am pétrole ñu ne la par exemple Sénégal dafa toog ci pétrole bëri am gaz bu bëri ñu war a def ñuy juboo ah war a liggéey mais suñu am politique yi nekk fii kii jaar ni ki jaar ni si kii liggéey defar kii ya jaar ni yàq mais loolu c'est pas bon parce que ñun vraiment suñu bëggee réussir il faut ñu booloo te suñu politiciens yi fi nekk nii il faut se dire la vérité ñoom ñoo ñu tardel fi nekk nii sérieusement parce que population bi di leen dépassé te ñoom xamuñu loolu xam naa nag li démb rek maa ngi dégg ku koy wax naan en 2024 xam naan politiciens fi leen di bàyyi dem ci dem ci dem ci yeneen yeneen kii quoi parce que ñoom ñoom loolu lañu mën loolu lañu mën quoi je trouve que dañu échoué quoi lamentablement bon le fait que nag Khalifa Sall ñëw ñu libéré ko man je trouve que après je me suis posé une question les lignes ko parce que nous aussi de toute façon est-ce que récupérer un milliard et quelques est-ce que nous ko récupérer wala dañ koy après c'est comme le cas Karim Wade Si après 138 milliards ñu

suñu contri contribuable sénégalais bi suñu xaalis bi ñuy jël par exemple détourné ko wala ñu def ko naka suñu noonu di ma dama basé wu ci ni la justice moo statué bon dama gëm sama justice de toute façon man que affaire politique laa du politique bi ma wax nañ ne xaalis daal détourné nañu wala dugal ko def nañ ko naka noonu rek pour man xaalis bi dafa war a ñëw parce que ay milliards dafa bëri jeunes yi dañoo sonn dëkk bi xoolal dëkk bi jeunes yi kenn leen liggéeyul ñoo di waaw. Ah, jàngat bi ñu ci am de mooy sant yàlla rek. waaw di sant Serigne Touba di ko rafetlu te xam ni am réew jàmm rek ah moo moo ci gën ndax jàmm moom moo gën jàmmaarloo waaw Serigne Touba moo ko wax ne jàmm moo gën jàmmaarloo te maanaam ginnaaw xalifa eh, nit ku baax la eh, eh, natt moo ko dalal natt bi jeex na nañu ànd liggéey réew mi bokk ndey bokk baay waaw ah, aw niiru xalifa man eh, eh, ni ma ko gisee mooy maanaam làmb làmb làmb moom mi ngi nii làmb ji moom maanaam moom lu nee ngi ci mais nag maanaam après bu mu bu bu mu découragé bu mu yàkkamti te te na teey rek ndax maam yàlla moom eh, waxul kenn dara waaw bu fekkee ne yàlla war naa def mu mu war a jiite réew mi dina ko jiite bu fekkee yàlla dogalu ko du am waaye na rafetal tànd ak dal ah te teey rek te bañ a déglu ñi koy dugal te bañ a yàkkamti. waaw sant yàlla rek mais nag affaire bi duñ ni ci mbaax la ko def ndax politique la la ko moo ko lal xalifa Sall xam na ni euh, niñ ko xam na ni kii la hmm. xam na ni. adversaire politique Là. il fallait que da d'ailleurs affaire bi sax ñun ñëpp gis nañ ko après les élections la libéré yaa ngi dégg jël jël jël euh, Karim Wad, yóbbu ci yóbbu yóbbu exilé ko xam na dégg donc man du ma wax ni ci ak mbax lako def deng porte la de de sortie bo xamanteni yag yàgg na ko bëgg mais xamul fu fumuy jaar deng xam naa ni sax moom de dégg nga kii bi arrangé na ko maître Khassim Touré bi bind kii bi demande bi arrangé na ko ndax yàgg na wut porte boobu mënu ko am dégg nga na bëggoon na bëggoon na ci génn dégg nga patate chaude la woon ci réussir na ko ak Karim Wade yëpp loolu moo ko taxoon a jóg waaw parce que mu dem mu dem ba ba jox ko ba def ba ñu defal ko amnistie loolu la ñuy loolu la ñuy demander bu fekkee li muy wax gëm na ko na ko defal amnistie loolu la ñu gën a soxla waaw grâce bi teggiwul dara ci ci kiyam dégg amnistie daal moo gën a moom la ñu gars yi gën a nin Sénégalais yëpp loolu la ñu gën a loolu la ñuy souhaité waaw loolu la ñu waaw na ko amnistie moo gën waaw bu fekkee dëggu na ci moom na ko amnistie loolu daal la ñu kii. bu fekkente ni ñenn ñoom yaakaar nañ xalifa Sall mën na am aura ak statut bi mu amoon ci langue politique bi ñeneen yaakaar nañ pour loole am foog président Macky Sall daat koy amnistie waaye lépp lu ci mënta am li ci kanam raw lii gën.